mission ca Washington ak FMI débarque na ca Dakar ni ki ji nag la war a ñoom bëgg nag rek expliquer ak ki nga xamante ci moo di président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ci orientation yi war a teg nag ci politique économique réew mi rek ngir fexe rek ba koom-koom bi ñu mën koo joyanti lu solo yi ni naka ci gayee naka mu lay naka négociation yi nga xamante ci moo aju ci contrat pétrole yi nee Sénégal mun na contraindre xamante ne si ñu di waa conseil européen yéenekaay bi di xëy na fësal leneen te moo di ministre bi promettre naka ab système de santé boo xamante ne dina am doole lool gannaaw naka bi mu amalee ay tànku nemmeeku ci bërëbu fajukaay traque contre les débiteurs nag agriculture étrangère yaa DGD nag lancé na opération tolérance zéro amatul baali de Mamadou Ba DG gérant naka ci FS Oil naka moom libre nag gannaaw bi nga xamante ne si dafa daw wàqit naka seul Daouda Guèye naka bu DG Oil naka moom la ñu gisagul ci jamono ji moo nga ca garde à vue vers mandat international nag vers un mandat d'arrêt international naka la ñu sànne naka seeko foofa nag gannaaw bi nga xamante ne si daw na nag ne waqit naka dugg ci biir Gàmbi ñu dugg feneen naka ca moo di bi environnement ak bande filao yéenikaay bi ne li ko dalee 2018 ak 2023 da naka UMS mooy kuréel googe ëmb maire yi ak communauté laayeen urbanisme bokk na si ne na espace la boo xamante ne déclassement ak dernier poumon vert bu région bu Ndakaar lépp nag la ñu xatam-xatamee nag cour naka ni ki alxames la war a jox recours AG e ak annulation déclassification population naka bu 826 hectares yoo xamante ni si nañ ko foofee ca littoral ba boobee jamono Macky Sall am na audience ak Emmanuel Macron bu président bu France Macky la mu ca wax naka mooy limitation des mandats ci Afrique ñu naka naka koy limité bokku def sa ay rek a mun a dem may sa morom loolu nag daanaka yéenikaay bi nee moo gënoon a fës naka ci waxtaan wi nga xamante ni moom la doon waxtaan ak ki nga xamante ni moo wuute yoo xamante kenn gisu ko ci circuit bi ay source de conflit ay joote dëgg moo nar am na gannaaw bi nga xamante si yéex nañoo fible décret boobee nag ngir waajal nag action ak normalement service yi nga xamante si moo tegum am na si ay décret yoo xamante si moo di loo xamante si tegu ci yoon ndax jàpp nañ ne nag loolee nañ ko defee nag jaaru ci yoon nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di enquête moo xëy enquêté boo gis li ñu mel yéenekaay bi ne Diomaye Faye naka moo ngay xool naka ban solution moo gën ban formule moo gën ndax yéenekaay bi bi ne fintoon yi am na ci noonee la ko ministre bu buggee loolu tax naka fintoon yi daal nañ koy tàmbale ñoom nag tàmbali nañ moo di secteur secteur privé soobu nañu naka ngir fexe rek ba dund gi cher gi nag ñu daal di cay addu moo di rek secteur privé bi réduction du coût de la ak création d' waxtaan nañ ci ba duboo nag ki nga xamante si moo di président Bassirou Diomaye Faye Diomaye Faye ne fintoon nag dund googee ak wàllum xëy condition de travail la mu yaakaar na moo di secteur privé bi ndax lu ci ëpp nag ci wàll bi ñoom am nañ ci paar moo tax nag waxtaan ak ñoom fintoon xamante ne si ñàkk nañ seenu bakkan bu ñu sukkandikoo ci waa ONU ñoo fësal xibaar bi jottali ko public public xëyee yeggee ñu ko tribune yéen i kaay dikkaat ci ndaje mi nga xamante ni ndaje bu xumtoo dëgg moo dox ci diggante Macky ak Macron yéen kaay bi ne fintoon lañ doon waxtaane moo di wàllum jomaay defetu benn bokk yaakaar bi relation yi nga xamante ni si moo la am diggante Amadou Ba ak ki nga xamante ni moo di rek bokk na ci li gënoon a fës ci waxtaan bi waaye nag a fës ci waxtaan fexe bu ci Afrique sow a def rek ba limité mandat yi ku def sa morom mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba